ci biir marché bi rek faaw nga mën a buuxante kastoor yi ñu fees dell ak nit si veyu korite gi soxna yi di wutali boutique yeeg saamu la jume ngir rek jënd li nga xam ne moom la ñu war a préparé añu korite reer salade poivron persil oignon vert dara manquéwul si bile marché. oignon vert la ñuy jaay pêche chinois thym céleri naana yooyu daal la ñuy jëndkat yi moom gis nañ ni njëgu la jumi dafa xaw a yokk tuuti. marché bi xanaa affaire yi yokk rek. waaw yow fa yokk moom par rapport ak semaine passée man semaine passée laa fi jógee tomate bi maa ngi ko jëndee woon 800 tey maa ngi ko jëndee 1400. ceeb bi moom wax dëgg yàlla moom cher na mbir yi moom cher na trop trop sax cher na. bu dee ni lëjum yi njëg yi am na yokkute guñ si gis njëgu soble beeg pomme de terre bi moom fa mu ne woon la ne amul benn coppite. pomme de terre laa wax saako bi 8000 lay jar kilo bi 400 soble it saako bi 8000 kilo 400. fii ne moom ren moom macha allah kenn du jàmbat soble wala pompiteer moom. su weesoo loolu it ci épices yeeg aro mi njënd mekk njaay mi xumb na lool jaaykat bi xeetu épice bu ne lay jaay. épice am na lori am poudre am na xorom am na kirkima am na paprika am na am na am na épice lakk yàpp am na épice poulet. njëg yu xéwalee ñun yokkuñu comme ni ko doon jaayee rek pour 500 yi rek lañ koy jaay ba léegi. store di dund korite gi marché bi xumb lool at mu jot ni lay mel bu ñuy jib korite jaaykat yi moom waxuñu dara fi mu tollu tembe